mooy foncier bi tey bu ñu ko doon xool tey am nañu chance tey am la de am am un premier ministre boo xamante ne ci foncier bi la nekkoon am un président de la république ci foncier bi la nekkoon. Mm-hmm. pour man tey euh, Mamadou foncier bi du man di yow du kenn. ñoom fu ñu jógee seen corps boobu lañ koy xoolaat. Mhm. nan la ñu daggat daggat bi nan la caxat caxatee foncier bi te aussi tamit war nañ gën a leeral sénégalais tey est-ce que du rek ne jël rek ay nit tuumal leen ne leen am nañ fi diw am nañ fi diw am nañ fi temps am nañ fi temps d'hectare gis nañu Idriss Seck ça a été démenti par Abdoulaye amu ci. Mhm. est tamit jotul tamit foncier bi ñi gën ko leeral askan ñu ubbi ko wax ne. donc vous êtes pour que tout soit de tous les que ce soit marabout que ce soit publier ko. ñu xam kan moo am parce que ñu xam parce que xamul tax parce que boobaa yuuxu dina jógee fuñ ko fagul. loo yaakaar am na ci ñoom parce que tey je prends le cas par exemple man gàcce laa am bu ma déggee un Waly Diouf que j'ai respecté très mhm. bien. ses ses mots sont très fort. Mhm. bu nekkee lu mu wax dafa fort. parce que Waly Diouf Bodian que j'ai respecté man jusqu'à bu ma koy wax. Mhm. parce que ñoo bokk dëkk. c'était quelqu'un ñoo bokk dëkk Kër Massar. Euh, ñoo bokk dëkk Yëmbal. on l'a jamais vu même euh, venir en aide la population là-bas mais ah. tey bu taxawee wax loolu man daf may bett parce que moom euh, il a été toujours le secrétaire général des syndicats des impôts et domaines këram gu mu am Sicap Foire na nañu wax nan la ko amee Waly Diouf Bodian Waly Diouf Bodian këram mu nañu wax nan la ko amee terrain yi mu yor te yor nañu këyit nañu wax nu mu ko amee tey BM yu mu yor ba di ko di ko li wax nu mu ko amee donc les premiers prédateurs fonciers ñoom

mais nu ñu doon gérer seen opposition leur voiture mhm. leur train de vie les sécurités de Ousmane Sonko ils étaient payés par jour ñu may dégg mhm. ñu ñu doon àndal cortège dañ ko doon def loolu yëpp c'était dur dama ne xam nga la la gis nga yomb na ngay sànni mais on savait pas comment ils prenaient leur argent mhm. ils ont créé Copper Express ils ont créé leur taux maintenant ñun pourtant on les a laissé vivre on les a vivre mais moom bu jàppee ne tey taxaw tey nga ne nit ñi mais retour de bâton lay doon rek. waaw non dama ne yéen aussi vous n'avez pas été tendre ak ñoom. non Waly Diouf Bodiang il a fait combien de mois de prison. ak keneen ak keneen mais lu mu def dama ne lu mu def ku ko def waratu ñoom normalement waruñoo génn kaso ba tey di diriger réew. Hmm? parce que c'est des brigands yoo xam ne tey leur place est en prison leur place est en prison muy moom muy Sonko parce que lu tax parce que y a pas eu de jugement. ça c'est vrai.